ma gis ki daax kàcc ci yoonu murit muy Laat Sekk Sadaga gars yi partagé leen ma vidéo bi gars yi partagé leen ma vidéo question de sécurité la nag moo tax may wax ci vidéo bii fàttewu leen ne Abdoulaye Seck jamono yële ci ginnaaw indi woon na ñaari gaynde Touba tuddee leen Fawzeyni ñaari gaynde yooyu mu ngi leen yóbbu dëkk bu ñuy wax Polle benn village bu tudd Polle ne ci quinze kilomètres de Touba foofu la la yóbbu gayndeem yooyu ma nga fa créé benn parc la fa créé benn parc la fa créé parc boo xamante ne nii manga nga tiital wa dëkk ba ak dëkk yi mu dendal xam nga lan moo tax ma leen loolu dinaa ko expliquer mooy la sek yor na fa ñaari gaynde yor fa ñaari bukki yor na fa ay jasit yor na fa jaan yor na fa fokosheer ci ki nga xam ne moo ma informé li nga xam ne si nee na loolu leer na ko ne loolu moom ma nga fa nee na loolu moom ma nga fa leer na ko ne loolu ma nga fa fokochère ma nga fa jasit ma nga fa jaan manga fa ñaari gaynde ña nga fa ñaari bukki ña nga fa mu xamal ma ne ma ñaari bukki yi dañoo rëccoon temps yee ci ginnaaw benn bi ñu ngi ko jàppee ci booy génn dëkk bi beneen bi ñu ngi ko jàppee ci beneen dëkk lañ jàppee bukki yi benn guddi mu xamal ma biig la ma woo téléphone mu xamal ma ne ma biig biig biig benn bukki bi dafa rëccaat te dafa réer ci guddi gi mënuñu ko woon gis mu xamal ma ne ma fi mu toll nii dañoo tiit mu ne ma li rëcciloo bukki yi bis bu rëccilee gaynde yi dëkk bi kenn doon ko waxati te léegi nag mu ne ma dimbali leen ñu ngeen wax ci ministre bi mu jël ay matuwaayam ci parc Abdoulaye Seck Sadaga bii ndaxte tiital na waa village yi mu dendal village yi nga xam ne moom la dendal dëkk ba mu ngi tudd Polle Polle la la dëkk ba tudd dëkk ba nga xam ne fa la yóbbu parc ba ngir yàlla ministre bi nga xam ne moo yor wàllu woowu ak yor walum sécurité xawma la nak lan village bobu noonu manam ak liko wër ñi ngi dund terreur ñi ngi dund titangé fim toll ni ndax Abdoulaye Seck Sadaga Abdoulaye sa dagga ancien député mais Abdoulaye sa dagga en tant que tel lay waxal li nga xamné mom la indi fofu noonu mi ngi tital population bi ngir yalla partager len ma vidéo bi ba ni ci wara jot jot si ndax dagga ma ngay tital ñoñu ak ay animaux parc boobu mu créé foofu amul sécurité ndax animaux yi léeg-léegi dañuy rëcc bukki yee rëcc nañ ñaari yoon kettaa yi la jàll rëcc nañu ñu jàpp leen biig biig biig biig di la cinq le cinq octobre bii bukki yi rëccaat nañu benn bi ba bi may mujj wax ak waa feeñul